والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وكي سنت يالله julli ci sangub sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di fàttali suñu bopp di leen fàttali ragal yàlla di fàttaliku rek ne fan yii di ñëw incha allahu taala ñi ëpp ci jullit ñi ci suuf si danañ màggal guddik ganeek àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag li ko waral mooy sant yàlla ak delloo njukkal te loolu lu war a am la ndax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam gane àddunaam googi wane na lu bare bare bare ci li nga xam ne tax na doomi aadama texe àdduna ak alaaxira ndax la ci la doomi aadama bàyyee di jaamu keneen di jaamu yàlla te mboolem lu nit mën a am ci àdduna ak alaaxira mu ngi tukkee ci jaamu yàlla te bañ koo bokkaaleek dara Seexuna Seex Ahmadul Xadiim wax na ci guddi googi wax na ne guddik gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gane àdduna guddi la goo xam ne day far ay sikk ca la nit ñi bàyyee sikki sàkka dem ci lu leer naññ waaye guddi la goo xam ne itam dafa far ay coona ndax nit ñi bu njëkk ay coono bari woon loolu ci àdduna laata yonent bi alayhi salaatu wasalaam di feeñ waaye itam ñi la ci la nit ñi fare ci ay bàkkaar set wecc ci ay bàkkaar ci la ñu amee texe ci la ñu amee li ñu daan wut ci lañu ñu ci lañu ame mboolem ni ñu daan àdduna alaaxira ci la ñu ci ak mbugal kon loolu guddi gi moom noonu moo tax ay woromi xam-xam jàpp ne guddi gu mu mel nii nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ne suñu borom moo ko wax ne ko dama laa yónni nga nga doon ci mboolem àdduna guddi gi mu gënee àdduna guddi gu mat a màggal la gu mat a bàyyi xel la buñ ko dee màggal nag euh, dañ koy màggale jàng alquranul karim jaamu yàlla dañ koy màggale kenn du ko màggale yeneen rawatina julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam waaye di ko màggale yaatal sa njaboot bégal leen waaye di ko màggale itam di jàngataat siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam ak di jàngataat diine loolu cheikhuna cheikh ahmad xalim junj nañ ko ndax nee na màggal ko teg ko ci sunna néewut màggal ko sunna la waaye dee ne bu ngeen ko dee màggal na ngeen ko màggale teg ko ci sunna li ngeen di def daal na doon defi sunna taazimuhu bi sunnati yaquundu daan lil jannati buñ ko defee dañ wommat jëmale ñu aljanna ndax jëf ju baax la te jëf ju baax day wommat nit ki jëm ko aljanna waaye itam dana dollee ku ku ko def suñu borom mën naa dolli sa xéewal waaye ci koo xam daa sellal jëf gi te teg ko ci sunna ki nga xam ne moom la sëñ bi wax ki nga xam ne moo koy jariñ àdduna di ko jariñ alaaxira bu koy màggal da koy màggale te teg ko ci sunna moo koy yóbbu aljanna te ko te du ko may li mu bëgg àdduna ak alaaxira yàlla na ci yàlla doolee dimbale mbokki jullit yi buñ dee màggal na guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam war nañoo fàttalikuwaat àq yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ko ci ñun am na ko ci ñun ab jullit bu nekk am na ay droit yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko am ci yow nga xam ne lii du loo xam ne dañ koy waxaale waaye euh, force la ci nga xam ko bu baax a baax a baax àq yooyu bokk na ca muy nga gëm ko képp koo xam ne gëm nga yàlla ne du ma ci boole yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa gëm yàlla yàlla du ko nangu ndax suñ borom moo jël yonent def ko ni mu ko def yónni ko ku ko booy gëm yàlla sax da wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lu ko may sa gëm yàlla yàlla du ko nangu kon jaam bu yàlla teral la jaam yàlla ci boppam moo ko teg fi mu ko teg kon képp ku ko ko ah, bokk na ci àq yi jiitu rek mooy nga gëm ko moom waaw kenn sañu ne damaa gëm yàlla waaye bu ñu ne yonent bi kat déedéet loolu sa gëm yàlla du du du tekki dara bokk na ci itam àq yi ñu ko yoreel mooy sopp ko cofeel goo xam ne moo ñuy gënal suñu bopp gënal nu suñu suñu ñëpp ba ci nit ñëpp loolu moo ko wax nee na euh, kenn du am ci yéen ngëm gu mat sëkk balaa nga am ngëm gu mat sëkk dama lay gënal sa waajur sa doom ak nit ñëpp te yonent bi alayhi salaatu salaam de loolu bu ñu ko waxee ñëpp war koo mën a nangu ndax moom yonent yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko waxoon ne ko danaa la jox ba nga ne doy na wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda ak lim daj lépp ngir ñun suñu boroom bi mu koy wax ne ko danaa la jox ba nga ne doy na ba mu ko waxee loolu da ko yonent bi da ko caa tegal ne du ma ne doy na mukk te kenn ci sama xeet wi nekk safara kon ku mel noonu nga xam ne lu ne daj ne ko ngir yow kooku itam yaakaar na liy delloo njukkal mooy sopp ko cofeel xam ne da nga koy jox euh, da lay gënal ca lépp mooy saabu soxlaa yow nga bàyyi ñëpp bàyyi sa bopp bàyyi ñëpp kon loolu tam lu ma ta bàyyi xel kenn ku ne mën nay nat ak cofeelam ci loolu du ay waxi kese itam euh, sopp na bi rek ak wax rek kese kese duudee déedéet waaye yonent bi daa soxla sa bakkan soxla wala keneen soxla nga bàyyi sa bopp jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne tudde sa njaboot euh, wala sa sa waajur nga nga jiital yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Tuubaa de moom fa mu nekkoon moom nee na bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam far na ci man bëgg lépp ma mahabati yal muxtaara sayidana xubbil magaaniya wal ahliina wal walada nee bëgg naa yonent bi alayhi ba bëggatuma dara dami wa ahli wa awlaadi lfidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada nee na sama deret sama lépp jox naa ko muy jotug yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci yeneen wax yu kawe kawe kawe yoo xam ne mosuñoo gis ku bëgg nit ba mu àgg foofu ndax nee na xaddi wiqaayatul rijlil mujtaba an shawkatin wa maa yudaahil aqraba ne tànk tànku bi yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko bëggoon teg ci ab dëkk wala lu mel ni jiit ma teg sama lex mu teg ca tànkam moo gën jiit di fet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy bëgg dëgg toon foofu la nit ñëpp war nekk bu ñu fa mën a nekk ju def ko seen kem kàttan beneen ba itam mooy bokk na ci àq yonent bi alayhi salaatu salaam ñu fonk ko ñu jox ko cër waaye fonk sunnaam mooy lim fi bàyyi ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam leeral na diine ñë fa mujjoon mu ne ndax jotal naa ñëpp ne ko waaw mu daal di ne kon yàlla su borom seereel na jotal naa li nga ma yónni woon te lépp di yërmande lépp di taxe àdduna ak alaxira ku ko def muy sa bopp ku ko defut tam moom wàccoo na ak yow ñi fi nekkoon ak moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci boppam moo leen yar wax leen nan ngeen war a ànd ak yonent tedd boo xam ne ku tedd ku ne ci moom nga jaare ci dara jaam nga tedde nga xam ne xoolal sëñ Tuubaa ni mu toll ni mu toll nga xam kenn xamul lu mu doon moom mu tudde xaadimul rasul mooy kii jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki koy liggéeyal kon loolu kawe kawe kawe la boo fonkee sëñ Tuubaa loo ko gën a fonk rek gën a fonkaat yonent bi sallallahu ci biiram ndax moom tuddewut boppam dara loolu kii jaamu yàlla tey liggéeyal yonent bi sallallahu kon kooku dara jaam kenn xamul nu mu toll te ku ko fi bàyyi itam doo doon dara suñ borom moo waxoon saxaaba yi ne bu ngeen nekkati ak yonent bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddoom kon teggin yi ñu am ci digganteek suñu kilifa yi loolu yàlla ci boppam moo ko digaloon saxaaba yi bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddoom bu ngeen di wax ca kaw comme ni ngeen di waxee seen biir ndax su ngeen ko defee mën naa yàq seeni jëf bu ngeen nekkee ci ñoom moom itam na ngeen di wàcce seen kàddu ñenn ñooñu ñoo am ragal yàlla ci ñoom la yàllay jéggal te ñoom la yàllay fay nee na ñi nga xam dañ koy jóor mooy nekk ci biir ngeen naa ko ee di ko di ko di ko jaar ci aw aw turam nee na ñi ëpp ci ñoom amuñu xel ne dañoo war na muñ rek ba mu génn te buñ ko defee suñu borom mën na leen ña lañ la weesu nag xay na jéggal na leen ko kon ay teggin yi ñu war a nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom ci boppam moo ko wax saxaaba yi ànd ak moom kon kooku jaam bu yàlla fonk la jaam bu yàlla teral la lu waaye di am ci moom ngay jaar bi mu jëmee ci yàlla suñu borom moo ko ne demal ca kee jàmbe mu di ko liggéeyal ba am ngërëmam ba mu amee ngërëm am ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala beneen ba itam bokk na ci àq yi ko ameel mooy di ko àtteloo ci lépp ndax lépp lu nit kiy def da ko war a dëppaleeg na sëñ bi nee na woon ku bëgg a mucc da ngay teg say mbir ci na ndax jëfe na mooy tax nga mucc waaye boo fi wuteeg na itam doo da ngay daal di tooñ suñ borom moo ne falaa wa rabbika laa yuminuuna xataa ko fii ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajat mimma xadayta wa yusallimu tasliman bu ñu bàyyi woon mbir yi ci sunna yonent bi ak li yàlla àtte benn problème du am ndax bu ñu nee lu lii nga def soo ko teg nga ne ah yàllaa ko diglee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp nangoo ko noonu kon benn jafe-jafe du am di àtteloo yàlla di àtteloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yeeg ñu doon yeesal diine yi loolu lañ fi nekk woon ku la gën a dëppoog loolu rek moo la gën moo moo la gën ku la gën a dëppoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy royukaay boo xam ne ñun moom la ñu royloo kenn mënta mel ni waaye dañ ne roy leen ko roy leen ko mooy loo man rek nga def loo am rek 35 pour cent 30 pour cent 50 pour cent waaye lu mën a xew rek nga jóg ngir roy ko moo gën nga noppi rek eh, ne mel ni koo xam ne kenn mënu koo roy mu doo am ci moom dara kon yàlla nañu yàlla defal ñu doon ñi nga xam ne dañuy taxaw ci seen ak yonent sallallahu alayhi wa sallam eh, nañ ca war a taxawee mën a texe àdduna ak alaxira yal na yàlla defal texe àdduna ak alaxira musul ñu ci euh, rekk ngëm ndax euh, loolu suñ tubaa daana ko ñaan ne na ngeen euh, wax leen ne yàlla nañ yàlla musal si salabul iman mooy gëm yàlla ba ci yàgg gëmatoo yàlla nañ ci yàlla musal waaw yàlla nañ ci yàlla musal te li koy waral mooy di bañ bañ a def ndigal wala di di di bañ a bàyyi tere yàlla nañ yàlla jéggal suñu way daw dawlu ñi jéggal sëñ Abdourahman Mbacke moom mi ngeen xam ne wàcce na ab liggéey doonoon kennuk diine koo xam ne ñëpp xam nañ ko waaye yàlla mi ko doon liggéeyloo moo ko wàcce yàlla na gërëm jëfam yëpp àdduna ak alaxira mboolem ak ñoom fa fekk ñëpp waaw ndax euh, lu rëy rëy la waaye suñu borom moo ko tege musiba mu rëy rëy la mu dal ci kaw lislaam dal ci kaw yoonu mu daw ci kaw insaaniya lim jariñ tam doonoon tam ab royuwaay boo xam ne ñëpp war nañ cee roy nit koo xam ne boo ko nit ñi xamee ca lam nekk rek la war a nekk ku ko bëgg a gis demal ci yoonu jàkka ja soo ko bëgg a demal sa fa mu doon jullee loolu ama am solo loo xam ne ab royukaay bu rëy bu mag mag la lii ñu doon wax tey yaakaar naa ne moom nam ca mel buñ ko doon waxtaan doy na sëkk waxtaan yal nañu yàlla doolee jéggal rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaban naar